ñent fan ci wéru koor le cheikh ibrahima fall lamp ñëwoon mbàkke kajoor bis bi la gisante won ak sangam ba sëñ bamba sëñ sidi mokhtar ak waxon sëñ cheikh jëm talibem ba motax bo ba légui ñent fan njabot gi diko magal waye ci ñaar fukélu fan le cheikh rafal jëbulu motax tax moussa ka wax ne ma wax la bis ba ndax mu woor ñaar fukki fan la ci wéru koor bisub dibé le mbir ma woor cheikh ibrahima fall